نفسا بالغاد أتيت بي لزاد بسكريا jërë ngeen jëf suñu mbokku téléspectateurs yi teewlu Xass TV ñu ngi leen nuyu baax di leen jaajëfal ci saxoo ngeen saxoo di ànd ak ñun ci suñu jotaay yu mel nii ba léegi ñu ngi fii ci Touba ku ne xam ne ni ñu ngi waajal bis bu màgg di 18 safar di bis bi nga xam ne si Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou bàmba moo ko digle woon euh, nii bu jotee rek nañ ko santalee euh, yàlla suñu borom ci bis bi waaye ñu ngi toog kenn koo xam ne si nag euh, ñëpp min nañ ko ci yoonu murit ñëpp ràññee nañ ko muy Ahmadou Ndiaye Ngiraan bokk ci euh, daarul xudóos euh, ku wax daarul xudóos da nga wax Cheikh Mamadou Moustapha waaye ku wax Cheikh Mamadou Moustapha da nga wax ki nga xam ne si mooy Serigne Touba te ku ne xam na ni ci tukki géej gi euh, foofu ci daarul xudóos fi la ku tedd ki duggee woon xalwa gisoon fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa yooyu yëpp sëñ Ahmadou Ndiaye ngiraan bu nuyoo dana ci dikk ak ñun ñaari tomb lañ fa séenee waxtaane bi ci njëkk mooy taarixu màggal gi beneen bi ci topp mooy ana ah, lan mooy màggal ak euh, murit nan la war a màggale euh, sëñ Ahmadou Ndiaye Nguirane ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyu ak suñu mbokku internet yi ñu doog a dugg ci waxtaan bi aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi mbokki talibe yi ngi leen di nuyu te di leen ziare di jiital ci nuyoo bi kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di nuyu mboolem usratul xadim yooyu yëpp di nuyu jullit ñëpp fuñ fi mën di nekk ci biir pàkki suuf yi leen ñaanal yërmande yàlla ak njëgalam di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha fan wu gudd ak wér suñ borom gàttandu ko ci liggéey bi defal ko ci tawféex li mu ci yéene suñ boroom defal ko ci lu kawe njortam barke Cheikhul Xadim di nuyu bokki talibe yëpp di jëkkante ak waxtu yi rekk yëkkati sunu kàddu mu jëm ci ñaari tomb yooyu ñu wax ngir nu fàttalante ci muy solos màggal gi ak noon ko war a taxawe loolu lu jaadu la waxtu wu nekk ndax nit lépp lu muy sonne te xamu ko mu loru ca moo gën a yomb mu jariñu ca sunu damay wax ni weñ dee na ci soo waaye xaru rëyu ko bëgg soow ko rey waaye ñàkk xam ne muy jariñoo ci sow ma nag moo tax bakkanam des ci loolu itam dafay walaabal ci waxtu wu ci nekk nit lépp lu muy def war na koo xam ndax mooy tax mu mën caa jariñu mooy tax itam mu mën koo def nañ ko soxlaa ndax soo damay wax ni yàlla ku neex a àndal la waaye ku naqaree àndal la ku neex a àndal la ndax santaanewul lus mënut ku naqaree àndal la itam ndax da nga koy def ni mu la ko waxee rek wala du la fay 18 euh, safar nag bisub sëñ Tuubaa la mooy bisub jaamub yàlla boo xamante ni ni suñ boroom tegoon na ko ay nattu mu muñ ko ngir jëmmi yàlla ba suñ boroom teggi nattu ba defal ko ci lu musta defal kenn mu xeeb ca cantuk boppam woo mboolem koo xamante ni ab soppeem nga nga santale ko ci suñ boroom loolu lu rëy rëy la waaye buñ delloowaatee rek ci sëriñ bi ci boppam muy koo xamante ni ni yitteem ak pas-pasam ak ku mën a muñam ak ku fitam amut ci koo koy misaal ci ñi ko jiitu ci jamono wala ñi ñëw gannaawam ku ne xam na ni ginnaaw boo xamante ni ni waajuram sëriñ Mor Anta Sali làqu na sëñ bi am na jeneen yitte yu gën a kawe la bokk ya nekkoon te mooy jàng ak jàngale yitte ji mooy li ko sun boroom wax ne yaral sa njaboot gi ci yitte yitte nag mooy cër yu yaru xol bu yànj yitte ju kawe ci jaamu yàlla loolu ci la woote mu am pas-pas yi itam liggéey liggéey boo xamante ne nii mboolem aw nitam ci la ñuy muccee àdduna ak alaxira maanaam liggéey boo xamante ne nii rey ràmm aw xeet loolu du doon liggéey bu yomb loolu nag suñ boroom da koo tëggale ak noonu jamonoom muy tubaab yi nga xam ne dañoo wàll si ci biir réew mi doom yi soxna yi nga xamante ne ni ci réew mi lañ cosaanoo ceddo yi nga xamante ne ni ci réew mi lañ cosaanoo buur yi nga xamante ne nii ci réew mi lañ cosaanoo ñooñu ñëpp kenn ku nekk am na bët boo koy xool bu bokkut ak buñ doon séentu ci dëkkandoo walla mbokkum jullit loolu ay xat-xat la te dara warulu ko itam lu dul yitte ju kawe ji nga xamante ne ni moom moom la ëmb ci biiram te mooy jële nit ñi fi ñu nekk yóbbu leen ci étape bu gën a kawe te mooy ñuy yëg yàlla waxtu wu nekk ci lépp nag loolu moo waraloon mu tuxoo Mbàkke Kajoor ga mu nekk ñëw Mbàkke Bawol gi nga xamante ni nii mooy village nataalam fi la gane àdduna waaye ñaari dëkk yooyu yëpp ñoo yam ci moom ndax yenn bokk yi rekk ñoo fi nekk xat-xat yooyu itam moo ko bàyyiwut ba mu sañc dëkk bi mu jëkk sañc ci kaw suuf moomal ko boppam muy Daaru Salaam mag ñi tudde woon ko jàmm gënu ay muy wut jàmm rek doxin woowa itam la sukkandiku ba sañc dëkk bi ñu nekk tey muy tuuba muy benn barab ci barab bi suñu borom yi yàlla moo ko tànnal boppam mooy wax ni li xeeru jamaa wuute ak yeneen xeer yi ci des noonu la Touba wuute ak yeneen dëkk yi ci des loolu coobare yi suñu borooma ni mu defee ajjuma mu gën ci bis yi mu tànn weeru koor mu gën ci weer yi mu tànn laylatul xadar mu gën ci guddi yi mu tànn yont bi sallallahu alayhi muy gën gi mbindéef noonu la suñ borom tànne barab bii mu bokk ci barab bi suñ boroom yi nga xamante ne ni li mu ëmb ci biiram neexut xam sëriñ bi yàlla dogal mu dund fi juróom-ñaari at képp la fi am 1888 la ko sëj 1895 la ko génn kon juróom-ñaari at la fi dëkk yoo xamante ni nekk na fi ak njaboot gi di dem di dikk di leen fi fekkaat waaye muy barab boo xamante ni nii nee na lépp lu mu fi ñaan suñu borom may na ko te ku dem ci xasida ak Matlabul ni nga xam ni moom la sañce dëkk bi te booba ci biir làkkum ngeer la nekk soo ko tëralee di ko firi lum ca tuddoon mën nga caa teg tey sa baaraam ni mu ngi nii kon sëriñ bi saayiram moo nu wan baatinam ndax lim nu waxoon ci saayir teg na ci suñu bët kon baatin ba lañ ci àggugut saayir si moo koy firndeel moo tax nu gëm ko nin ko gëmee bi nga xamante ne ni sanc na fii mu tëdd tey di Touba ci 1888 ñaari at la ca teg sanc kër gële di daarul xuddus tudde ko daarul xuddus li rabbil alamina mursilu ahmada mu ne mooy kër sun borom gi nga xamante ni nii iblis mosu faa teg tànkam mu doon kër goo xamante këru wéetaay la kër goo xamante ne ni kenn daw ko fa fekk ku dul ko mu woo mag ñi sax kër yàlla lañ ko daan wax ndax wéetaayu nekk fa noonu itam la sañc daaru rahman muy kër sëñ sañ ci daarul minam muy fee di kër sëñ basiiru yooyu yëpp ay barabama muy baggante ci barab yooyu ak barab bi di wéetal suñ borom di dugg xalwa foofu yi ci këru daarul xuddus gi daarul xuddus kër ga moo tudd daarul xuddus néeg ba moo tudd bayti ñenn ñi ni baytul xalwa ñenn ñi ni baytul izza bari na ay tur daal waaye daal néeg sëriñ bi la moom te it weetaay la fa daan def waaye turu néeg ba nag daa mel ni moo nangu turu kër ga turu quartier ba nangu turu kër gi waaye kër ga moom la tudde woon daaru xuddoos li rabbil alamina mursil ahmada koor gam fa mujj woor nag muy koor 1312 ca fukki fan yu mujj ya ca la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu moom nag nee na ay la mooy ca ba bët am la ko gis du ay nelaw du miir miir waaye nee na bay na xijaabin raqiq nee na benn rideau bu woyof moo dal moo dox seen diggante mi ngi koy gis waaye mënu koo jox loxo mu ànd ak ahlu badrin doomam nettali na ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacke wax ca lu bare bari ci wàqante gum wàqante yonent bi sallallahu alayhi wa ci ñeewante gu yonent bi am ci moom akuk cofeelam ak itam yërmaande jum ko ëmbal ba tax ñu bëggoon koo jox ak xutbaaniya te booba ñeen fukki atam des na ñetti weer waaye mel na ni moom yitteem gën naa kawe lool mooy yonent bi la bëgg ni ahlu badrin mel ci moom nga xam ni fu jëm jëm fa ak ñoom ca ñooñu la ba yëgu bokk loolu it dañ ci jàng yi tey sëriñ bi ndax ahlu badrin ñaari at ci gàddaay ga lañ xeexoon joxoon lislaam seen deret boroom xam-xam yépp juboo nañ ci ni fas yañ daan war pour it may génn ci gimiñu fas ya moo gën a foor jëf yi wàllu yu kamaal kon kay fa war ca kaw faso kenn xamul dimension nu mu toll sëñ Tuubaa ni ci ñooñu la bëgg a bokk ginnaaw boo xamante ni ni junni at dox na seen diggante ak ñett téeméer ak fukk dox na seen ndax 1312 la kon junni at dox na seen diggante ak ñetti téeméer ak fukk mbooloo moo xam ne bañ la rombee ak léegi mat na junni at ak ñetti téeméer ak fukk nag nga la xasaayu ni ñoom la bëgg a dabi boo amul yitte loo leen dab sëñ bi ni ñooñu la bëgg a dabi ca groupe boobu la bëgg a bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki at ak benn ca gàddaay ga la wàccoon ab liggéey sëriñ bi di ko gis ayaanan la wax di wax ni axbarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi moo ma xibaar ne ma wala saafahani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu saafonte na ak man tuñ ak toñ loolu itam danga nga ci xamee yitteem ju kawe ndax yonente bi bi mu demee ak bi sëñ bi feeñ jamono junni at la ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar loolu itam yitte ju kawe la te diggante bu tuuti lañ dox sëñ Tuubaa maa nga ci biir groupe ba sahid allahu bi anni waahidun min ahli badrin ma naha ni suñ borom seere na ni kenn laa ca ñooñ badar lu yitte la waaye ci waqante goog yi mu doon wàqante ak moom ca barab boobu yi ngir liggéey bo rëy boobu yi nga xam ne moom la bëgg a sumb muy liggéey boo xamante ni résultat ba mooy mën a ram mu aw xeetam njëg gu seer lañ ko ko jaaye mooy ay nattu yoo xam ne mat na ñaar téeméeri nattu ak juróom-ñett fukk ak juróom nattu ya nag ngir mu ñëw day génn dëkk bii di Touba ndax mbooleem li mu ñaanoon suñ boroom ci dëkk bi suñu boroom nangu na ko kon day génn foofu itam da nga ci xame aw fitam ndax daa daal di bañ waree rek la daal di takk ay bagaasam dem mbàkki bari ci jolof ma ni koo fi musa dégg mu gàddaay comme mën a doon dañ koo toñ toñal ci barab xañ ko jàmm mu wuti fu mu amee ji jàmm sëñ Tuubaa bàyyi fa mi amee jàmm nga xam dañ ñu ko boo fi toogee dara loola naqari du la fi fekk mu bàyyi ko fa dem foo xamante ni nii musiba la fay xaar nattu loolu itam mat naa bàyyi xel ci ci mbiram ba mu demee foofa nag la nattu bi tàmbali ci mbàkki bari ci jolof ndax ñaar lañ ko tegaloon mooy da ngay génn dëkk bi bi ci des mooy sa nijaay sëriñ bu bi mook soxna jaara ñoo bokk waajur wu góor ak wu jigéen am na ba suñ borom xas na ko wuyu te bu nattu bi diisee ci kanam moom dana ñaan suñ borom te kon suñ borom dana dana ko teggi te kon li nga bëgg doo ko am mu ñaan nijaayam jooju wàccu liggéey ca tabaski wala nijaayam wàcc liggéey ca kor yi ga la génn tabaski ko nijaayam wàcc liggéey ca safar ja la nattu bi agsi ci kawam mu génn ànd ak tubaab yi ñu boole kook ay nooni jamonoom muy wax ca biir xasida ga ni xusuuriya xalat wal ahlu an ni tafarraxat li matxi lazi xanul madihu xasiru samay njëndi wéet na muy ay dëkkam ndax moom ma fa nekkoon di alimenté dëkk ba rocc nañ ko mooy dinamo bi mu ni tasaare nañ samay taal jàng ndax moo leen dongay moo leen fa dajale tàggale nañ maag sama njaboot gisatul doom gisatul ab taalibe gisatul rakk gisatul jarbaat ñu ne ko lu ko waral mu ne ràbbal mbubbum tagg yonent bi sallallahu alayhi wa te nee na yonent boobu bi may tàggkat mbubb moo ko ràbbal soo gisee jëmm ja da ngay am kersa ndax taarub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mi wax ni fa mablagul ilmi fiihi annahu basarun wa annahu duunahu aqlun wa afkar nee na yonent bi moom loolu la ci waay mën a wax mooy buñ nee mbindeef la daal wax nañ dëgg waaye la neen loolu ci waay mën a wax xel ak xalaat la waaye yonent bi ëpp na foofu waaw boobu nag la ànd ak tubaab yi rooñu liggéey bu rëy boobu yi nga xamante ne ni rooñu na ko bis boobu mu génn ci këram googee tàbbi ci loxo yi noonam yoo xamante ne ni fay taal bi muy taal lañ soxla noonu yoo xamante ne ni bakkanam lañ soxla mu engagé wu bis booba bisum naqar la bis bu tiis la ndax wan na njabootam gannaaw dugg ci loxo yi ñoo xamante ni nii képp ku mësa a ñoom amoo ca ndam ndax tubaab yi diggante 1854 ba 1886 jàlloore ju ne nañ ko ci réew mi ndax bu dee buur yi eh, ñoo leen faagagal dameel sàmba yaaye jéeru jéeru la sàmba lawbe al yooyu ñëpp ba ci Lat Joor mi ci mujj ci 1886 bu fekkente ne ni doom yi soxna yi la Maba Jaxu almaami Ali Boukar Mouhamad Lamine Darame Amadou Seexu eh, ñooñu ñëpp tubaab bee leen fagaagal bu fekkente ni ceddo yi la ba tey daara yi alxuraan yi daara yi ca ñoom rek ñoo ko lakk daara yi pir ñoo ko lakk daara yi longoor ñoo ko tasaare kon jaloore ju ne def nañ ko fi kooku nag ku tàbbi say loxo sa njaboot waratuñoo nelaw waaye moom mu tàllal loxo njaboot gi ñaanal leen ci xel mu dal ci leen damay liggéey waaye maa ngi del siwaat ca la waxee ne asiru ma al abrari xiina ne wa zanna al ida anni hunaka asiru mooy ñii mu làngal àndut ak ñoom moom ahlu badrin la àndaloon tubaab yi ay jumtukaayam lañ yoo xamante ne nii daa da leen di utiliser ngir mën a jot ci li mu soxla ñoom nag dañoo jàpp ne ab prisonnier lañ jàpp kon ñoom bokkuñu ay xalaat sëñ bi moom da leen a jàppee ay jumtukaay yoo xam ñoo koy dimbali ngir mu mën a jot ci li muy wut ñoom it ñu jàpp ne ab prisonnier lañ jàpp boo xam ne ñoo koy wat kon ñoom ñaari seen seen i idée bokkut mu ñu yóbbu ko it ci ak tumuranke ci barab boo xamante ne ni xamu fa dara ndax benn mooy fiñ ko garde woon ci ndar diir bi nga xamante ne ni moom la fa am muy diggante 10 euh, août ba weer ak lu topp nga xam ni 18 safar ja ba ca rabiul awal ja bay dugg rabion sànni lépp mu ngi seeni loxo ci foofu ci ndar foofa itam da gis ni bi mu ñëwee ndar mag ña nga xam ne diine daf leen di yor te ñi ay nit ñu la dañoo waxtaan ni léegi nañ gis gouverneur général ñaan intervention mu bàyyi ko mu dellu ndax sëñ bi moom amul problème ñoom xam nañ ko ndax daana ñëw ndar dafa def ay fan di delluwaat di jaxasoo ak ñoom bi ñu demee waxataan ak gouverneur général gouverneur général d'accord na waaye dañ leen day bind na bind wax ni daa bëgg ñu bàyyi ko mu dellu ci daaraam biñ ñëwee wax ko ko moom daf leen wax ni leen ni de da ngeen a jóom booy àtteeb xeex dangay dem ca ka ëpp doole nga ñaan ko lam lay may ñaari ka néew doole dana ko nangu ñu ni ko ah, waaw loolu de moo war ne mu leen xeex bi maa gañe te départ guñ kon moom tiitut woon ci li muy def ndax xasida ak assuré ko bi nga ko bindee Ahmadou Njaay maa biey la ko jox ni ko téyal ma ko yaa way sama seere maa ngi demaat maa ngi ñëw te yow ba may dem ba ba muy ñëw yow doo fi faatu ca la duggee ca xat-xat nag ñu yóbbu ko ca bitti mu nekk fa am fa juróom-ñetti at yu manqué samaaniya xijjajin ilaa xalila mboolem pexe muñ doon fexe ci moom pexe ma sottiwul dara mënta nekk ñu delloo siwaat ko ci réew mi ba 1903 le 11 novembre 1902 lañ ko delloosi ci biir réew mi bi mu réew dellusee ci réew mi réew mépp fàq wut si ko muy lañ doon bañ tey la gën a wàllu gën a ay ndax lu mu fi bàyyi woon rek dolliku na bàyyi woon fi ay jàmbaar Cerno Birahim taxaw taxawaay bu dëgër yor njaboot gi say wax ni li lay xamal njàmbaarook maam no mooy bi ko sëñ bi bàyyee yoon wi di dem ci fanweeri at la toll sëñ bi bàyyee ko ak njabootam bàyyee ko yoon wi ñu xool ni yonent yàlla Haaruna ñeent fukki fan la ko Moussa bàyyee aw nitam dem ca xalwa ba ba Moussa di del si fekk ñoom ñëpp ñuy ñuy jaamuy xëram ñu wedd yàlla bay jaamuy xëram ñeen fukki fan sëñ Tuubaa ñu bàyyee ko bàyyee maam ci yoon aw yoon juróom-ñetti at del siwaat mbooloo ba gën a dolliku seen pas-pas gën a dëgër loolu lépp coobare suñu borooma 1903 ñu jëlee ko fa yóbbu ko gànnaar mu def fa ñeenti at ñu jëlee ko fa yóbbu ko Ceen Jolof mu def fa juróomi at yooyu yëpp ay xat-xat la yoo xamante ni liñ ci bëggoon rek mooy bund xatal ko parce que jéem nañ ko éliminer physiquement mënta nekk léegi moralement moo ci def mooy génne ko ci xelum nit ñi li ci des mooy mooy ñu gën koo suufeel yóbbu ko ci ay nit ñu weex ñoo xam ne jàpp nañ nit ñu ñuul ñi dañuy am complexe pour gis nit ku weex ak ku ñuul ñuy woote ngay topp nit ku ñuul ko far ñu weex ñi ko jox seen bopp bari na ay seexi gànnaar yu nekk Mauritanie yoo xam ne fa lañ cosaanoo te suñ tuwaay seen ci suñ biñ ko indee ceen jole fi mooy dañu jàpp ni ad tàngoor wi fi nekk ak mar wi ak gannoos bu bari bi adapté wul ak dundam buñ ko fi bàyyee xëy na léegi mu faatu tey nit ñi duñ sawar pour ñëw foofu waaye bi ñu ko indee dafa mel ni nit ñi seen objectif bépp seen jëmuwaay mooy ceen jolof amatuñ fenn soxla ñu jële ko fa door kaa indi njaareem njaareem itam bi mu ñëwee résidence surveillée lañ ko def am na fa fukki at ak juróom yoo xamante ni nii génn ko ñaari yoon la ko mos a génn benn bi 1919 la maam Cheikh moo ñaan autorisation pour mu ñëw mbak xuru Mbàkke seet si njaboot bi ci des 1922 la gouverneur général moo ko wowoon ñaari yoon yooyu la ko mos a génn kon sëñ bi ci ay xat-xat la nekk naka jekk kon da ngay gis ni diggante 1895 ba 1927 sëñ bi ci xat-xat rek la nekk muy fanweeri at ak ñett loolu dana noonu la jaaxal trop mooy lim bind. nan la ko mën a binde te lim bind kenn xamul nu mu toll nit ñaa ngi wax 7 tonnes 500 waaye ëpp na ko 7 tonnes yi mooy lim fi bàyyi ñu peese ko bi mu génnee àdduna lim fi bàyyi ñu peese ko ngir man koo yoonal loolu mooy 7 tonnes waaye du caagi ni 7 tonnes 500 la bind sëñ bi bind na sànni ci biir géej gi bind na jàmbu naan bind na gas suul te loolu kenn xamul nu mu toll bis boobu yi nga xamante ne nii moom la génnoon ci Mbàkke Bari yi ci Jolof nag muy 18 safar daa wax ni saa yu bis bi del siwaatee nattu yooyu yi ko suñu boroom tegoon nattu yooyu dañ koy fulaat ñaar téeméeri nattu ak juróom fukk ak juróom dañ koy gën a mettil tegaat ko mu doon ab liggéey boo xamante ne nii contrat bu yàgg la ba ci amatal sa sin di 1922 en tout cas date yi woote nañ ci ñenn ñi wax nañu 18 la ñenn ñi wax ni 21 la ñenn ñi wax ni 22 la loolu la histoire baaxoo waaye daal benn bés la xëy ci at moomu ci 18 safar ja suñ boroom xamal ni ko natt bi jeex na deetoo gis dara lu dul lu la neex ba keroog ngay tàbbi àjjana waaw bis boobee nag la waxoon ni ci lay sant suñ boroom daa di wax ni bis boobu yi mu génnoon ca la amee loo xamante ni nii cant gi ci amee suñ boroom làmmiñu boppam tuut na ca mu wax ne nag képp koo xam ne sa mbég sama mbég sa mbéga bés boobu yi mu ñëwee nag ma ci sant yàlla li tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem lu ci waay am na ma ko ci defal te sant la ma ko yàlla waaye doon na ci wax ak mag ñi ni leen tabaski bisub yonent yàlla Ibrahima la tamxarit bisi gaa yu baax yi la ni leen yéen nag sama bisu tukki bii mooy seen bis ci ngeen amee lu ngeen am ci ngeen ko amee ci ngeen rawee kudul yéen mu doon bis bu rëy boo xamante ne ni diirub lim fi nekk ci at yu mujj yooyu at mu jot dana ko màndargaal sant ci suñu dem na ba wax sax ni àjjana amul ay bis waaye buñ fa demee bisub 18 safar bu ñëwee suñu borom dana soppi àjjana bëgg ku fa nekk danga yëg wane neexit wu bokkut ak wi nga doon dund soo laajee ñun la bisub Ahmadul Xadim ba tey jii moo tax mu yor melokaanoo kon bisub la bu rëy rëy boo xamante ni nii fonk na ko lool te boo demee ci mbindam sax da xam ni doy na kéemaan ndax mu ngi wax ni xab lii busaaraatin baax baadi wal tutwi lii yaa la kulla boodi muy sun ñaan sun borom na ko nekk nag moom may ay xéewal yoo xam ne sama gannaaw lay ñëw kon dund njariñ loo fekke lii lépp ñaanoon na ko suñu borom lii di am nga xamante ne nii daanaka àjjana àjjanay bitti la euh, ñaanoon na ko suñu boroom ab lii bu saaraatin mooy may ma ay mbég yoo xamante ne nii sama gannaaw lay ñëw te nga jegeel ma lépp lu sori woon lépp luy dox ci àdduna di baax rek soo ñëwee Tuubaa da fi gis bayoonu te lu ñor ci réew mi ci boo ñëwee Tuubaa da ko fi fekk Tuubaa fabrique buy def dara daanaka néew fi waaye lépp lu ñu liggéey ci àdduna ci lu rafet boo ñëwee da nga ko fi fekk yooyu yëpp ay ay mandarga la rek yoo xam ne daf ñuy wan may gi nga xamante ni nii moom la ko suñu borom may bis boobu yi nag njaboot gi mu fi bàyyi woon ñuy ay doom ak i bi ak ay soppe ñoo ko wéyal def bis bu ñëwatee kenn ku nekk la nga man nga def ko ci Cheikh Mouhamadul Moustapha doon na ko taxawee ba bi Cheikh Mouhamadal Fadal ñëwee ci 1947 la woote ni kenn ku ci nekk fa nga newoon di ko def nañ ko fa bàyyi te ñëw fii fii fu moom ndax moom mi ngi fii te dootu fi tox ndax wàcc al ilaahi maskan yi tuuba abad ñaanoon na suñu borom ni ko tuuba na doon sama dëkk waaye ba faw mu ni kon nañ koy defee ji fii fi moom ngir rek moom itam xër gum xër ci sëñ tuuba ak yéene gum yéene ñëpp jàmm ak bëgg defin woo xamante ne sedd xolub sëñ bi tax mun nañ ko defee te sëñ bi li muy def lu mooy li gën a jafe mooy sant yàlla sant dafa jafe ndax kenn mënta forcer nit mu def ko moo tax mu doon ak jaamu yàlla gu rëy daf lay neex rek a def ko te it eh, sun borom waxal na ko boppam nee na xalilun min ibadiya sakur ñu néew ci sama jaam ñoo may sant fi mu toll nii kenn koo xamante ne nii keneen fekk na suñ borom ci yow amut waaye ñu néewee sant yàlla nit ñi moom loolu mooy seen melokaan. koo gis rek amul kaneen koo xam ne loxoom a ngi ci yow ku dul suñ borom loxoom si yàlla rek nekk ci yow parce que gën a àdduna bi nga koy génn loo am yàlla loola daal moo la ko teg waaye ñu néew néew ñooy sant yàlla nit ñi moom benn bu ñu amee sant seenub sëriñ bu ñàkkee xarab yàlla lu leen dal am na ku kuñ koy jéej Sëñ Tuubaa nag ba mbooloom maase ci wut bi bisub jant boo xam ne bu njukkee njëkkee ñun ñëpp danañ yëgandoo ni tey bisub jant la sun xel dana delluwaat ci suñ borom suñu xel dana delluwaat ci Sëñ yi lii mënul fàggul dana delluwaat tam ci may gu rëy gi nga xamante ne ni moom la suñ suñ suñ borom may sëñ bi ten duggaale ci biir may ga te it sant rek la yàlla wax nag ci la jël décision ci ni bu ngeen santee ma dolli leen bu dee jaamu yàlla surlam cee teg rek mooy la laallakum man naa am waaw yaa ayyuha llazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul xayra laallakum ndax yàlla ma yërëm leen ndax yàlla ngeen texe wala kutiba aleykum siyaamu kama kutiba ala lasina min qablikum laallakum tattaquuna woor leen ndax yàlla ngeen jëlee ci ak ragal yàlla waaye sant moom dañu bu ngeen di sant rek ma leen bi loolu moom la santaane ba tey jii nag kii fi nekkal sëñ Tuubaa di Cheikh Mouhamadul Muntaxa ca tànk yooyu rek la jaar muy soññ njaboot gi woo leen ci bisub cant bii nga xamante ni moom la sëriñ bi am ñu ko ci delloo njukkal te mu wax moom ni ñu war a sant mooy sant yàlla sunu boroom sant la ko sëriñ bi sant sëriñ bi ci boppam sant la ko sunu boroom door ko sant la liñ ci war a def nag mooy bisub jaamu yàlla la du bisub folklore nit ñi nag dañoo folklore ba nga xamante ni nii lépp loo yor ci lu baax danañ fexe ba xajamalal la ko danañ fexe ba soof la te wërlu woon a soof ndax aw defin waaye bis bi moom lépp luñ ciy def dafa war a dëppoo ak sunna euh, dëppoo gi ak sunna nag mooy def ci loo xamante ni moom mi moom bis bi su doon jëmm di waaxu ci suñ biir doo ca def loo xamante ni ni bu taxawoon doo ko def loola war nañ ko ci am moytu kon lépp lu ci waay man ci waajal ko ci jëkke ci xol bu laab muy am yéene ak pas-pas ak jubluwaayu jaamu yàlla loolu war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax a baax muy niñ koy waajale ci seetal kër yi niñ koy waajale ci seetal yére yi niñ koy waajale ci jumtukaay yi nga xamante ne ni biir daf koy soxla noonu lañu ñu war a waajale suñu xol yi ci jéem koo raxas ci lépp loo xamante ne ni ay taq-taq la lépp loo xamante ne nii ak caay-caayu biir la jéem koo génne daw nag jëmale suñ bopp ci jaamu yàlla te mooy li suñ borom santaane yonent bi sallallahu alayhi wa jàngale woon ku sëñ Tuubaa tegoon ca tànkam kuy santale sëñ bi yàlla ca loola ngay teg sa tànk ndax suñ borom da koo jox xéewal goo xamante ne nii jaamam yi sell tey sellal ñoom la ko jox ngir nu mën caa bokk nag dañuy raxas suñ jëmm ba mu set nu dugg ci kon du bis boo xamante ne nii rek ci lekk ak naan rek lañ koy waajal waaye dana war a góorgóorlu tàbbi ci ak xol bu laab ci am yéene buñ ci jógee ku nu gis gën a naw Sëñ Tuubaa waaye du doon waxi kese nit ñi nag seeni wax mooy weddi seeni jëf léeg nga gis ku la xaacul ab taalibe wax ak cofeelam ak Sëñ Tuubaa waaye bu jógee jëf ja moo koy weddi ndax da nga koy séen ci leneen loo xamante ne nii méngoowut ak lu ab taalibe war a nekk Touba gi nga xamante ni moom lañ jëm si ñu may ko orma ci sàmmonte ak taxawaay bi nga xamante ni moom lañ fi war a taxaw ndax barab la yoo xamante ni ni barab bu sell la Cheikh Ibrahima Fall dafa daan wax ni Touba dafa jege pay bi te fu jege pay bi de su fa tooñ ndax fu nuy tiñoo kenn du fa tooñ fu nuy kenn du fa barab la bu sell boo xamante ni ni mooy fi yàlla wóorut ndax niñ fi fule ak jaamu yàlla man naa am mooy ko fi itam noonu lañ koy fule moo tax bu nuy ñëwul nañ ñëwaale ak discipline ñëwaale ab yar ak i teggin tey mooy tonte ci suñu biir te jàppalante sëñ bi daal li mu fi santaane mooy jàng alxuraan jàng xasida istixfaar salaatu ala nabi toog jox sa bokk jullit yi ñu am doole dimbali ñi néew doole ñi ñi xam laa biire ñu xamul jokk fi ak bokk lii rek la woote te loolu naka jekk bi mu fi nekk loolu la doon santaane ñi ko fi wutu gannaaw moom la doon santaane kii fi nekkal Sëñ Tuubaa itam moom la doon santaane li ci dolli ko nag mooy li nga xam contexte bi nga xamante ni moom lañ toll muy mbas moo xamante ni ni tasaaroo na ci biir adduna bi fenn fu ci nekk réew yi ëpp doole sax gis nañ ñi jaaxal na leen loole itam la cay suñu warugar rek mooy li ci waa sant santaane nan ko def te bàyyi suñu bopp ak yàlla damay wax ni takk masque taxutu mucc waaye suñu borom mën na ci am jaarale sa mucc raxasu taxuta mucc waaye suñu borom mën na caa jaaral suñu musal yooyu yëpp ay ñaan la rek yoo xam ne dañ ko matérialiser muy takk masque du jàggee ni ñàkk doy loo yàlla la raxasu du jàggee ni ñàkk doy loo yàlla la waaye ak wattandiku la te loolu yonent bi sallallahu alayhi yoo xam ne atawakkulu xaali wal iktisaabu sunnati fa moom dawafa an ali fala yarxaw an sunnati dee leen wàkkilu tey sabab day leen lu tey wakkilu ci yàlla loolu rek loolu Cheikh Ibrahima Fall daan wax ni làmb daj mu ni làmb du tax a daj waaye daja nga ci loxoy kuy làmb loolu rek lay doon mooy na nuy tey def santaane yi te wakkilu ci suñu borom te bàyyi suñu bopp ak sëriñ bi te xam ni dara du xew lu dul li suñu borom namm rek loolu mooy xew xul lan yusibana illa ma kataballahu lana li yàlla dogal rek loolu mooy am waaye ginnaaw xamul nag li yàlla dogal mooy dañuy moytu rek ba keroog dogal suñu borom di agsi suñu kaw bu boobaa nu nangu ko ndax daa bokk ci ponk ci gëm yàlla noo ngi jéggalu bu baax baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu amartali kula لسبب سبريا يا رب يا الله